ci euh, juge yu bëri yoo xam ne ils ont géré des dossiers politico-judiciaires euh, ils ont été nommés euh, ñenn ñi gis xam nga nag su may wax wax justice damay moytu parce que ñoom dañuy seetaan lépp te benn jour dañu lay jàpp rek ne la yaa waxoon li donc ñu bëri jàpp ne euh, dañu leen récompenser muy poser le problème euh, du du du principe. Euh, bi may président de la République mu nekk chef euh, mu muy diriger le conseil supérieur de la magistrature euh, yow est-ce que assises nationale yi. proposé woon nañu ko xam nga moom laa doon doon da nga ma bàyyiwul ma pare. ci programme assises woon nañu ko. ci réforme institutionnelle yi boobu ci la. donc yow. da ngay da ngay dindi président supérieur de la voilà et puis il faut affranchir le parquet. le, le parquet de de l'exécutif c'est ma conviction. et et am ma conviction parce que li nga wax ni dama ko dund. tous les juges qui m'ont jugé ont été promus man man xaw ma Karim mais man tous les juges qui m'ont été qui m'ont jugé ont promus. pas du tout je sais pas mais tombé waral ay gaaf. justice bi libre na. je pense que faut pas jeter l'anathème sur la justice ni la pierre soo nee juge yëpp je crois que yaa ngi tooñ. non waxuma juge yëpp. dama ne la justice de manière générale. je pense que telle qu'elle est rendue au Sénégal. pense que je est-ce qu'il y a de l'équité? pense que la plupart des juges son plus honnêtes aussi honnêtes plus patriotiques aussi patriotiques que nous. man loolu laa gëm moo leen sonal. xëy na li leen sonal mooy contexte yi leen di place pour ceux qui acceptent de de subir ça mais man je ne jette pas l'anathème je considère que gënuñu leen jub gënuñu leen honnête gënuñu leen wóor man moom laa gëm mais parfois ils son dans des contextes où c'est assez compliqué pour parce que ay nit la ñu rek c'est pourquoi moi au lieu de leur jeûner jeter l'anathème nañ leen jox moyen yoo xam ni ñun politique yi amatuñu pression ci ñoom xam nga lim la parce que dama gëm ou dama yaakaar ou dama foog ni li tax ñenn ñi parce que bul wax ni ñëpp la li tax ñenn ñi di flancher di faiblir ou di aller dans le sens des juges des des politiques xëy na seen carrière la seen enfin n raison et que man ma gëm wu ma yaakaar ni bis buñ leen affranchir ci pesanteur ak contrainte yi nga xam ne ñun politique yi moom la ñu am seen kaw gënuñu leen doon gor gënuñu leen jub gënuñu leen wóor donc le, la solution c'est pas di leen xalab wala di leen saaga mais c'est de les mettre dans les ma conditions que ñëpp pour que ñoom dootuñu am benn moyen de pression. bu ñu sa dina laal conseil constitutionnel le mode de nomination oui, des juges oui tout tout même on va transformer ça en cour constitutionnelle. comme au partout dañ koy def ñu bari parce que su nekkoon cour da nga koy gën a yaatal da koy gën a dooleel dañ koy gën a crédibiliser.